والتقبل الكلام منا على خاريز نروبي مما يفوق الزن من مهروبي يناسم الحروف خليج رباه يا من كفاه سالقرور والباء ولي يا رحمن يا رحيم يا خيو ويا خيوم يا مكرم يا نجاك عبدك القديم سلام مسلما على موسى زين الغلام سبحان ربك رب العزة أما يسمون سلام على مرسل ولم دار بان سرين بي يالا nga dund téméral ko kattan ci barkib xassidi ci daraja sin dawra sen اهدي جميعنا صراط المستقيم وبزهير كلنا بلا سخيم لك ختام man xablana kon siyaare baa ngi nii mbooloom Serigne Modou Moustapha ngi nii ñu fas yéene tënk siyaare bi nag ci ñaari kàddu kàddu gu njëkk gi ñu di ko jox Serigne Bassirou Dieng mu wax ci kaddu mbooloo mi geneen kàddu gu ci des di kaddu sëriñ bi ñu di ko jox sëriñ seex Diop ndam bu ñu noppee sëriñ bi ñaan ñu dellu ci ite yi te ñu ñaan fekkee ko at yu baree bari barakatu Seynal lay nuyu ci turu mbooloo mi di jël kàddu gi ci turu sa doom sëriñ Cheikh Mbacké Taïf muy sëñ Cheikh Mbacké mu sëñ Mohamed moo waroon a jiite siyaar bi ba bi mu fi ñëwee ci yor-yor dana waxoon ne dana ñëw jiite ko ba léegi moo xamal nu ne dafa am ngànt dafa am ay gan. yu mu fa munta bàyyi looloo tax mu ne nan ko def ndax buñ ko dee xaar dana gën a xaw a guddi kon sëriñ bi ñoo ngi lay xamal ne siyaar bii siyaar la boo xam ne ma nga tàmbalee woon ca sëñ Modou Moustapha bam àndee mag ñi ñëw fii ba ci sëriñ Cheikh mu woote woon fa wooteem bu rëy bi ci 1973 waxoon ak waa dëkk bi wax ju daw yaram ca lañ ko ñaane woon ne ko bu bis bi del seetee dañ koo bëgg a màggal def ko ab siyaar mu nangul nu ko siyaar boobee nag du ba nga xam ne moo ko wooteeloon boppam woo tund wi yëpp dafa daje woon ak mu doon jamono ju naqari ju tiis ju mel ne jamono jii ndax mooy jamono ja nga xam ne bi jur gi sax amuñu woon luñ doon lekk ba ñu ci bari ca lañ wàññi ko woon mu waxoon waxam ju rëy ja ca njaareem waxoon ne danga gis nit koo xam ne dafa yenoom bu bam di dem te boo ko laajee fu mu jëm du la wax ne barab sàngam laa jëm ndax ak jaaxle bi mu ñëwee taay fi gi mu wax waa mag bu ñu wooyee mag ñeeg ñëpp ñëw mu wax na ne war ngeen sant yàlla ndax jamono ji naqari na waaye li muy naqari naqari am na loo xam ne bu ko ci sun borom boole woon mu gën a naqari te boolewu ko ci kon war ngeen sant sun borom a ci bu ñàkk boole loole ci coobareem rek la ko defee booba tey nag cante cant googee mu santoon waa dëkk bi waa dëkk baa ngi xëy continuer di ko sant ndax ñaan gam leen ñaanaloon ak dig bam leen digaloon leen bu ma sañoon bis bu set fi laay yeewoo waaye xat-xati jamono moo tax munuma saa bu ne ma defi yeewoo waaye saa bu ne ngeen xam ne sama xolan fi sama xelan fi xam nañ ne loola mi ngi ci yow boo yeewoowut ci dëkk bi bu ne itam xam ne sam xëy ak sam ngont yépp lu jëmale dëkk bi ak lu jëmale waa dëkk bi kanam rek ci nga nekk Mbàkke ñu di la waxal ñun ñi fi nekk day ay ni ko sëriñ mu waxe ay doomi taalibe ak seti taalibe rek ñoo fi daje yaakaar yañ amoon ca sëriñ Modou Moustapha ba mu waxoon nag mag ñi ne leen ñaan naa suñ boroom ba dëkk bii la wolof njaay wax ne lu daay daay tàkk-tàkk bàyyi kuréel mooy dëkk bi lu àdduna jaxasoo jaxanoo suñu borom dana ma ci dëkk bi neeñ kon jaxasoo dëkk bi ak feebar yeeg yu metti yëpp yàlla ak ñuy suturaal ba liy arrondissement bi yëpp déggaguñ ci kenn ku ko am te loolu ñaan googa jàpp nañ ca ñàpp ñaan googee bañ ko jàppee jàpp nañu sa barke bii ci la la nga xale bi moom la sa mag yi la fi jiit woon waxoon it ndax sëriñ Mouhamed Mbacke fii la toogoon ñu defal ko siyaar bii mu wax ne na ngeen xam ne lu ne ñeme naa koo taxaw digle leen ko ngeen seen ma ma digle leen ko ba dem ci toog ba mu des daayira bi neen daayira bi maag yéen a ci yem dañ ma ko digal digal leen ko kon fu ngeen ci nekk maag yéen a koy ànd kon ca yoon woowee rek xam nañ ne ca nga nekk sëriñ Abdou Fatah bi mu fi ñëwee itam fii la toog daayira bi siyaare ko fii mbooloom yëpp siyaar ko mu wax leen ne ndigalul Serigne Cheikh de bu ñu demoon ba muy des kenn na ngeen xam ne man mii lay doon jàpp nañ ne foofee yow it foofee dong nga nekk mooy ndigalul sëñ Cheikh bu ñu demoon ba ñuy wax kenn fi des kuy nekk ci ndigalul sëñ Cheikh bu ñu geesoo sëriñ Abdou Fatah sëriñ Abdou Rahman lay doon. kon Mbàkke yaakaar ji dolliku na ñoo ngi ñaan li jamono yi naqari naqari li feebar bi bari bari bari bari noo ngi ñaan nga musal ñu ñaanal ñu mucc ci kudib taalibe kudib jullit ku ne mucc ci wa surtout waa Taïf gi nag moom. fa leen ya su sëñ Modou Moussa làqoon ba ne lu daay tàkk-tàkk bàyyi kuréel noo ngi ñaan nga dolli ci sag ñaan ba nga xam ne bi li nga xam ne bi moom la nit ñi bëgg muy di taali bi ak kàttan guñ liggéeyee ñu am ko sëriñ bi noo ngi ñaan ci darajey mbooloo mi ak seen baat bi ñu ma jox ñoo ngi ñaan ci sa daraja ak sa mbaax ak sa liggéeyal sëriñ Cheikh bi nga sumb te ñëpp ñaan nga àggale ko fa nga ko bëgg àggale nga ñaanal nu am wërsëg woo xam ne lépp loo ci liggéeyub sëriñ Cheikh bi waa Taïf kenn du leen ci man noo ngi ñaan école bii ngay bëgg a tàmbali na ñuy waa Taïf jëf joo xam ne ji la sëriñ Cheikh waxoon ca ba mu defaree tokkër boobee ba noppi di ko baylu bayloo ko ñetti semaine àggut mu ne lii mooy santaane su ma ko santoon jigéen ñi Taïf daañ ko def wax waa Taïf ñu dem fa ba jant ba daataa soo ñu àggale ndam loolee sëriñ bi ñoo ngi koy tàllalaat di ko ñaan di ñaan ñu am ko ci diine lislaam jii li nga soññi ci sëñ Moustapha ci suba ñoo ngi ñaan nga may nu ndam ba ñu am kàttanu jumaa ji ni nga ko bëggee nit ñi di ko fi defee ba saabu ko fi ñëwee xam ne fii dëkk bi dëkkub lislaam la muy dëkkub Cheikh Modou Moussa sëriñ bi ñoo ngi ñaan yàlla mi am jàmm yàlla na may jàmm may jullit yépp jàmm sëriñ bi ñoo ngi ñaan yàlla mi may fan wu gudd yàlla na la may fan wu gudd woo ànd ak wér goo xam ne kii doo dara du cee topp lu may wër yàlla mi nga xam ne moo mayee wërsëg noo ngi ñaan may la wërsëg boo xam ne loo bëgg jëf da nga ko jëf wasalaamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu bismillahi rahmaani bokki Taïf Mbacké ak li ci aju lépp ci biir dëkk bi ak li wër dëkk bi ak ñi nekk feneen ba ci ñi tukki nekk bitim réew ak ñi tukki wut sëriñ bi wax na ci biir ne mi ngi leen di nuyu te leen di ziyaara di leen ñaanal yàlla sunu boroom kenn ku nekk suñu boroom wërsëgal ko kàttanal ko ba li mu bëgg a liggéey ci dëkk bu tedd bi di Taïf mu liggéey ci ko we njort nee na mi ngi leen di siyaare bu baax ci bis bu tedd bii di bis bu tabaski gii nee na mi ngi siyaare bu baax itam imaam yi ak Baye Abdouloo mi yor dëkk bi ak ñi nga xam ne itam ñoom la yàlla dénk ndombay tànki àddina mu ñi fi nekkal gouvernement bi nee na bàyyiwut kenn waaye nee na bi mu nu siyaaree ba noppi siyaare bii xam na ne dëkk bi ñoo ko baaxoo def ni ko sëriñ Bassirou waxe léegi ci way juróom wu tedd wa sëriñ Cheikh Amadou mbak ba ci magam yu baax yi mu fi wutu ba ci moom mii tey soññ bi nag bi ci njëkk nee na nañu xam ne dëkk bi ki ko sancoon di sëñ Moussa al Karim li taxoon mu sañc ko yii rekk la woon jaamu yàlla boroomam ak liggéey liggéey gi mooy bay fi ay tooli àllarba yu mu taxawale jumaa jee kuy taxawal jumaa na kon jaamu yàlla la waaye kuy bay toolit kon yaa ngay liggéey te loolee sëñ Moussa Karim daf koo tari ca la ko sëñ Touba dénkoon ca Ceyeen Jolof ba mu koy tarbiya moom Cheikh Abdoul Fadil na leen yéen ñaar ñii maa ngi leen di dénk ngeen boole jaamu yàlla ak liggéey sëñ Touba ne leen képp ku leen jox boppam te mën leen koo jaamuloo ji yàlla mën leen koo liggéeyloo ji na ngeen teel a tàggoo moom fii ci àddina lu ko mooy kat da ngeen am bett mu rëy ndax fa ngeen di bëgg a tàggu fekk tàggoo wees kon sëriñ bi mos sa fooyee yàlla boromam ndax xam kattanam ak sañ-sañam. moom mii nag nee nañ ñooñu mu fi nekkal ba jataay bi agsi ci moom mësuñoo sàggane jaamu yàlla nee na xam ne sag waaye dañu ci soññ rek ginnaaw dëkk bi loolu la ko boroom sañce woon sëñ Tuubaa yar ko ci loolu ba xës dëggam doon xalwatoo fii ci Taïf wax na ca biir xalwatu ba ne wax xaw wi ni rabbi wax taati leen aw awxaati wa saat yow suñu borom maa ngi lay ñaan man moo sëñ Modou Sowa nga dëgëral ma ci jaamu yàlla samay heure ak samay waxtu yépp nga jeexal ko tàkk ci rek ma lay jaamu ak lu lay bégloo kon fii ku fi nekk war ngaa ñemee jaamu yàlla bu baax a baax war a doon teeru seytaane ci jaamu yàlla sa borom ci foo mën a dem nag war ngaa ràññi ci loolu bu baax a baax kon nee na mi ngi ci mi ngi ñu ciy soññ dëkk bi itam nee na bëgg nañu gën a góorgóorlu ni mu ko waxee léegi ndax Serigne Mohamed kat magam ja ba mu fi defaree pale bee am ñu koy ñaanal ñu jógee woon Ndar ànd ak Omar Diosi ba ñu waxee ba àggal dana leen lii ngeen gis kat gàttandu ñaanu sëñ Moussa Ka rek la. ndax histoire del si ndax ay ndar ndar dañoo mës a jógee ndar ànd ak masoran ñëw fi fekk seex si def fi ay néegi puwaar sëñ bay fan sëñ fàllu saar ñoom ba ñaanee bàggal sëñ Moussa dana leen ñaan naa fi loo nga xam ne day yàggatut ku ko yàlla sama borom fekke loo da nga ci teg sa bët waaye nag suñ ci àggee day waxuma ndar ga ngeen jógee yéen ñëw ci taayif di yéemu waaye togal sax réew yi gën a sore jóge ñëw taayif di yéemu sëñ na nag pale bi dama koo def ngir gàttandu ñaanu sëñ Moussa googee daal ni yitte yi may ñaanu saamam fàllu ga la sëñ fàlloo ñaanoon ku ñëw taayif bu ko woon gannaaw say soxla fa jiwut sëñ Mbàkke lu ñuy yéem di lu ñuy fettasu ay nitay taxaw def ko mu ne ñaan googu ci man Mouhamed mii lay nangoo loolee maa koy dëggal sëriñ bi nag nee na sëñ Moussa maamam mi sancoon fii xasida xalu da da caa wax ne yow suñu borom maa ngi lay ñaan li ma yaakaar ci tayif yàlla na nga ko dëggal ñu àgg ca tayif mel noonas nee na kon ñun ñi kenn ku nekk na bay waaram ca loole si am soi yaakaaroon ci tayif te lam ci yaakaar ne weesuwut lu baax ak luy sagal nit ñi ak lu leen di suturaal nee na kon nanu ci góor góorlu daj suñ yittee di ci dox guddi di ci dox bëccëg ndax dana ko yaa rabbi xaq maa rajawtu min kaa wala takk fi ñu daa ma an nee na lam ko ñaan ne ko nag mu musal nag ci dund gu xat ak ñagas-ñagas nee na loolee nañ koy moytu nee na loolu mi ngi ñuy dénk ñuy moytu dund gu ñagas ak i xat-xat ñu koy andeen ci suñ biir ku dëkk Taïf modèle nga war doon ci foo mën a dem te sëñ Mamed waxoon na ko fii ku jóge ci man feneen foo dem daañu la jox place bu kawe lay tax ñu dindi ko yaa koy wane te yaakaar naa sax boo xamee la nga doon kenn du ko dindi kon loolu yi mi ngi koy soññee di ca dénkaane ñu gën góor góorlu bu baax a baax bi ci des mu wax ma ci biir ñaar yoo nga xam ne lépp a ko ñor neen waaye nee na bii moom da koo ñor ndax Cheikh Abdou Fatah la déggoon waxoon ko ca muy dénkaanu sëñ Moussa 42 ba léegi la mu wax ne ma na nga ko dolliwaat fii loolee nag nee na ñu bàyyi ko xel nee na te def ko di ko fanaanoo di ko yeewoo fu ñu jëm jëmaale ko fa noonu la ma ko waxee ci biir léegi bi may waxtaan ak moom te loola moo doonoon bàyyi góor seen bu ngi new moo ko nett li bokkoon ca donga ya dafa wax ne 42 Cheikh Moustapha dafa leen a woo fii ba mu leen santee ba àggale fekk muy bëgg a sancaat bay laa ne leen gannaaw bi ma leen santee gërëm leen maa ngi leen di diggal ngeen boole jaamu yàlla ak liggéey te boole seeni doole te bokk seeni wërsëg jamono nga ñëw ca kanam day wërsëg dana ëppaate waaye su ngeen ko boolee su boobaa du feeñ xanaa kon daayira ngoog boo xoolee jaamu yàlla ak liggéey bokk suñuy du wërsëg boole suñuy doole sëñ Moussa ne jamono nga ñëw ci kanam wërsëg dana ëppaate waaye nag bu ko boolee rek du feeñ sëñ Moussa teg ca ne mënuma nag kenn ku nekk ne coqet beru fee ma fekk la fa defar la waaye sëñ Moussa nee na mbooloo mu ànd mu ne te yàlla tax ak mu mën a doon ma defar leen mu teg ca nag ne nag. taalibe bu bëgg xam sag defaru nu mu toll ci yàlla suñu boroom sëñ Modou nee na ngay xool ni ngay defaree ci bindeefam yi ndax yàlla nit ñu képp lam sëriñ bi nag neen loolu ñor lépp ko ñor waaye ne lool bëgg nañu bàyyi ci xel bu baax ndax nee na kenn ku ne soo bëgg xam sag defar nu mu toll ci yàlla sëñ Moussa nee na jurta wëri jurta listixaarlu jurta jóg di jàng nee na xoolee ni ngay defaree ci bindeefam yi rek ndax ngay defaru rek noonu la sag defaru toll waaye da caa teg ne na ku bëgg a sag yàqu nu mu toll yàlla suñu borom mu teg ci wala yaasu billah nee na xoolal li nga yàq ci bindeefam yi ci nitam ñii ndax yàlla nit ñi rek lam sëñ Modou Moustapha ne kemtalaayu ni ngay defare noonu ngay defaroo kemtalaayu ni ngay yàqe noonu nga yàqoo mu daal ne nag lii ma leen di teg sax mel ne ab sànje muy ay coono yéen wu leen ko de waaye koo nga xam ne boo jógee kat doo ko nekk te soo jógee mën leen a ñàkk ànd sëñ Moustapha da nga koy soññ bala ngaa jóg moo waral defi leen nangam ji ak kaay leen defi lii loolu rek la mu teg ca nag ne li tax ma leen teg loolu ëllëg ca péncum yàlla ma buñ fa àggee damaa bëggut a dem mukk ca ker ga di leen bàyyi ci naaj wi moo tax ma leen di teg coono yi waaye ëllëg na ca péncum yàlla moomee bu kenn ku nekk àndee ak ña la sëñ Tuubaa boole loon yéen ñii day ma àndal da ngeen mel ne wëtteenu fett ci biirug daay kon loolee fés dana ko doon lool sëñ bi nag neen kon ñu bàyyi xel loola sëñ saa teg na nag yéen sama ñooñ su mbir tàmbalee di yàqu na ngeen féete di defar su ngeen defaree defar ba mbir ma yàqu doo nga ci sës sëñ Moussa Karim nee na na ngeen daw bu yàqu leen fa fekk te bu mel ni mbir yàqoo ci seeni loxo dénkaan boobu foofu la ko jeexale woon. sëriñ bi tegaat cene ne mi ngi ñaan bu baax tukkikat yi ak ñi ne ci réew mi léegi noonu la ko waxee ci biir nee xam na ne association Jëme Taïf ci kanam xam na ni ñuy doxe liggéey bu rëy rëy la waaye nee na Taïf ci kanam itam xam na ni muy doxe xam na ñu ko yorit nee loolu liggéey bu rëy la nee na lépp dëkk bee ko tax a jóg ku fi faatu. ak foo mën a jóge wala nga dëkk ci dëkk bi càngaay ak parfum li yaa koy def yépp ñu def ko ak yeneen jàngulu kaamil joxe ci àddi nee na mi ngi ci ñaanal sëriñ Fallou Gueye ak ñi jiitu ji ñëpp waaye neen nag foofu li tax mu dugg mu ma fi soññeeloo nee na daa bëgg mu xam ne la sëñ Mouhamed waxoon rek nee na lépp luñ koy defal yaar nee na moom mii toog leen na ko ko ko gënal nee na kon Taïf ci kanam ak association bi jëmee ci Taïf ci kanam nee na nañu fexe jagente noonu nee na ñun ñu ne fii nanu jagee ña tukki ndax ñun ñëpp yëg na li ñuy def ak taxawaay nee lu baax dong ñor ak dëkk bi nee na ginnaaw nag lu baax dong nu ñor nee na bu dajee war nañoo mën a ànd te it ci lu nit lu ñu mën a teree ànd nee kon mi ngi nuy digal nee na ñu gën a góorgóorluwaat bu yenn gaa yi ñibbisee bañ dajee nee na ñu dajee ak ñoom ñu xool nu ñu àndi liggéeyu sëñ mënu soi boobu nee na mi ngi ci soññi ñëpp it nag ku ci mënu li ñuy def weer 1000 francs xanaa atum lëm nga yëkkati ñaar téeméer maa jox sëñ mënu soi ci lu a doon loolu yi teraanga nga kon mi ngi ciy soññi di ko dégle kon loolu la waxoon ne ñu jotlu ko wax na nag ñaan na boroomam xéewal goo nga xam ne nee na képp ku ci jotut làmbal sa xol te seetaat ko te jéem a defar sa bopp waaye xéewal gi moom ñëw na te danañ ci jot kon Mbàkke noo ngi la ñaanal yow itam sunu borom guddal saw fan lool wéral say cër di la ñaanal baax nee mi ngi sant nag dëkk bi yëpp waaye nee na mi ngi sant itam doomam sëñ Moustapha Mbàkke Mohamed ak njam ñi mbokk sañ Mbàkke ñëpp góor ñeeg jigéen ñi waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. kon na ñëpp tàllal <laughs> walta qabal sal kalaam mun na ala xaari si nuróobi min ma yaboo xusan min ma ruufi linaasi min xuruufi xalid rabaa yaa man kafaahu sal xuruuri wal baa